fait du cirque là-dedans. ngeen baal ma nu ñu koy wax du cirque. Mhm. di gonfler fii di gonfler fii pour am benn chiffre boo xam ne dañ koy sànni nit ñi. voilà ne ah on avance. beneen question bi. lu tax question travailleurs yëpp nii parce que dañuy jël engagement yoo xam ne budgétairement attanuñ ko. Mhm. duñ ko mën. Euh, léegi euh, par exemple aussi kooku question bu ma intéressé aussi mais le président Macky Sall mais mais j' ai j' ai du mal cest dire que mais moom moom moom réew mi. Mm. vous êtes pas choqué par ça mmh. un président qui en trois semaines avant de partir mais signe des décrets qui engagent ouais, Le, le, le pays loolu la ñuy wax yenn la si piège yi sur des budgets sur des trucs etc etc hmm, hmm, hmm. mais je demande au pouvoir actuel de revenir sur tous ces décrets là lépp loo ci xam ne nekkul intérêt de ce pays là mais président Macky Sall est un président sortant il doit pas engager l'avenir du Sénégal par une signature qu'est-ce que cela veut dire ça jël xaw ma ñaata salaire léegi pour xaw ma combien d'anciens ministres ak seen soxna xaw ma lan ak lan ak lan. Mhm. changé xaw ma lan changé waat xaw ma lan. jox ñi ay indemnité yokkal ñi la. yokkal ñi indemnité et cetera au nom de quoi parce que tu vas partir am na ñoo xam ne bëgg nga leen ceebal mais suñu budget bu bu ay ceebal nit et on veut un budget équitable. Mhm. transparent et donc que la nouvelle autorité ak malgré toutes les réserves yoo am ci ñoom. Mhm. mais je leur dis revenez les décrets président Macky Sall signé moomul réew mi. il était un président boo xam dañ koo dénk état bi il devait servir l' état et le peuple kenn waxu ko buy dem mu ceebal ñu bëgg a ceebal. Hmm. Euh, tourner ay tiroir fii dugal bii dossier fii nañ xoolaat loolu yëpp lu ci nekkul intérêt Sénégal. Hmm. ñu changé ko par un autre décret. Ouais. comme ça ñu won leen ni bu ngeen yaakaar ne décret. mën na tënk réew mi euh, beneen décret mën na ko dindi. Hmm. mais donc soxna Fatou am c'est ça que je veux dire. Ouais. la politique c'est du sérieux c'est donc euh, léegi caaxaan ni mu fi mel ci réew mi daf ma jaaxal mais. nañu nañu xoolaat aspect yooyu yëpp nii et que donc affaire u prix yeeg affaire u salaire yëpp nii hmm. mais y a des salaires que l'État ne ne ne ne ne peut pas supporter ouais. même boo jëlee tey enseignant à l'université ils ont des salaires yoo xam ne est-ce que est-ce que est-ce que budget bi mën na ko supporter hmm. boo boo ci additionné bourse yi boo ci additionné yeneen yeneen yeneen les primes de nangam nangam pourquoi dans fax li mu wax nii je suis d'accord faisons un sacrifice partagé hmm. par exemple on dit euh, aux gens maintenant par exemple on plafonne les salaires pendant cinq ans nangam nangam parce que ça nous permet de dégager tant de milliards. Mhm. pour que secteur bi ñu booster ko et expliquer ça franchement aux gens. Ouais. Sénégal yi dafa ñu mais si tu parce que yaa ngi luubal bëggloo magistrat yi génne dossier yi ku nekk nga yokkal ko 500000 euh, impôt domaine ku nekk nga jox ko benn fonds commun nga xam ni euh, en trois mois. il peut être millionnaire mhm. euh, bi mm. nga paccoo ko jox say client te maro bu te te truc ñu ñaanal la wala tam bañ wax wala seen bañ laa song et cetera et cetera cette façon de gérer le pays mhm. mais nouvelle autorité par contre je ne suis pas très sûr que ils ont la capacité génn ci piège u li ñu tuddee ñoom seen bopp système bi. waaw parce que système bi lu doy waar la ah. doy waar la bon. et il y aura forcément beaucoup de résistance. alors ah am tam leneen loo xam ne jàpp nañu ne war nañ ci agir toujours dans le cadre de la rationalisation mooy les fonds politiques. Mm. y en a beaucoup à tous les niveaux. <laughs> et mm. loolu tam bokk na ci li nga xam ne dafay compliquer un peu la tâche financièrement parlant au aux parce que budget bi tam am na ci loo xam ne xëy na euh, xajoon na feneen y la question des investissements yi nga xam ne Sénégal daf ci am faiblesse toujours. Mm. investissement bu fi am étranger moo moo ko def et parfois avec euh, euh, problème yi muy àndal aussi. sur les fonds politiques am na lu ñu ci waxoon am na aussi fu ñu leen di xaar que mën na servir à quelque chose si si on oui euh, xam nga forme politique il faut que ñu xam fu mu jógee ak lan la. lan mooy njëriñam mm-hmm. euh, forme politique cest à boo nekkee ci état. Mm-hmm. ñaari boo buggee nit yi ñu def li nga bugg yow. ñaari xeetu euh, ñaar façon nga am benn bi mooy police répression ku def lu mu war a def nga daal nga daal ci kawam. Mm. loolu c'est c'est c'est une fonction régalienne mun nga ko def en tant que président en tant que ministre en tant que autorité. ku deful dara nga dal ci kaw am na beneen façon boo xam ne mooy guerre mooy la carotte c'est-à-dire que nit ki pour mu def li nga bëgg il faut nga guerre ko nga jënd ko c'est l'explication des fonds politiques soo buggee nit yi ñu ànd ak yow soit nga teg autorité walla nga jox leen xaalis ñu def lu ñu war a def à partir du moment ñoom dañu ne dañoo bëgg a soppi doxalin réew mi ça veut dire que fonds politique en tout cas au moins pour ce qui concerne ministères yi ak yooyu war warul am on peut pas comprendre que un premier ministre mu am fonds politique on peut pas comprendre que ay ministre ñu am fonds politique assemblée nationale le président de la république à la limite mun nañ ko tolérer parce que fonds politique ci yoon du doo ko may ku la neex en France léegi lu ñuy def man je trouve que c'est une très bonne chose mooy il faut rendre compte c'est-à-dire xaalis bi kan nga ko jox ak lu tax nga jox ko day am benn commission des lois à l'Assemblée nationale ñoom war nañu mun a xam yow sa xaalis bi nga yore woon koo ko jox parce que des fois un un état c'est quelque chose de très compliqué mm. cest dire que danga bëgg def benn opération ak militaires yi ak police yi mm. kenn eh, xaalis amul état mun na jël président de la République mun na jël xaalisam pour ñu mun a couvrir yu mel noonu mm-hmm. mais jël xaalis di ko jox gars yi ku seeti palais bala mu génn nga ko transport <laughs> ay millions yooyu du dëgg du yoon wala nga gis ay kilifa diine di leen jox xaalis man je pense que kilifa diine bu ñu leen bëgg a dimbal comme les imams aussi mm-hmm. nañu def benn budget en toute transparence ah. mm-hmm. on sait que ñii nii am nañu une une utilité dans la nation mm-hmm. c'est pas quelque chose boo xam ne dañ leen koy neexal cest à ñu wax lu neex nguur wala neexul nguur war nañu ko mun a joxe parce que loolu c'est le bien de l'État du du peuple sénégalais ñu jox ko mais lu fekk nga jël sa poche joxe xaalis. loolu war na war na mën a dëñ. loolu théorisé woon voilà mais même même fête religieuse. on a on a vu ici au ministre de l'intérieur jël sac def ci trente millions ñëw toog. mais c'est quoi cette façon de ça devait passer par une nomenclature. wala aide mm. euh, aux rescapés xaw ma lan victime d'accident. mu transparent. et ça bu tant que comprendre ñun loolu euh, je pense que dañuy toujours am jafe-jafe ci nu ñu yoree état. parce que lu ñu yore état état mënul nekk du genre alal alal bi nga xam ne moom nga fekk du sa alal hmm. président de la république n'est pas propriétaire de cet argent hmm. dañ ko dénk pour mu dépenser ko donc loolu dafa war am transparence ak fu mu dem engagement voilà donc warul warul def yu mel noonu donc je pense que man su ma nekkoon à minima su ma nekkoon waa PASTEF damay wax ne man sama priorité mooy ma moraliser l'état moraliser l'état mooy lépp lu permettre woon eh, lu bël yi am ñu di dagg yooyu yëpp à minima loolu suñ ko defee dinañu rendre un grand service mais nag du leen permettre ñu mën a am ñaareel mandat moom. parce que da ngay impopulaire. am na décision yoo xam ne da ngay sacrifier sa bopp nga wax ne man su ma amee wala ma bañ am ma am wala bañ am ñaareel mandat je m'en c'est pas du sama problème mais l'essentiel naa def loo xam ne. war naa ko mën a def voilà keneen ku ñëw dina jafee ci moom mu delloowaat ci yooyu. mais loolu ça demande du courage. parce que gisoo ne ñii si yoon boobu la ñu nekk. non non nekkuñu ci yoon boobu parce que dañuy hésiter et dañuy nekk ci loo xam ne mooy euh, c'est une erreur. ñoom dañuy yaakaar ne instant bi ñoo gën a muus ñëpp. ba mun a def yenn yi maanaam di contourner les lourdeurs yi xam mais gars yi ñu ngi leen xaar moo xam ñi nga xam ne mooy les gens du système yi nekk fii. ak les gens euh, yi nga xam ne ci bitim réew la ñu nekk ñu nekk suñu ay noon ñoo leen gën a xam. cest à ñoom bu ñu tegee benn ñoom teg nañu fukk di di leen xaar mm-hmm. donc ça veut dire que quelque part nit am na yoo xam ne munoo def lépp munoo defandoo lépp da ngay am sa benn priorité nga ne lii mooy sama priorité donc ci affaire fonds politique yi ñu fexe ba au moins ñu leeral mm-hmm. xaalis yooyu fan lay dugg mm-hmm. euh, bu ñu parce que c'est vrai que instant bi eh, am nañu ay information yoo xam ne ba léegi ñoom tam ñu ngi joxe ñu ngi joxe xaalis te loolu xaaruñu ko woon ci ñoom par exemple ñu recevoir ay nit ñi nga xam ne dañoo xarañe woon ci liggéey ci xeex bi ñu amoon mais dañ leen jox paas. Hmm. donc yooyu je hmm. pense que nekk na yoo xam ne peut-être c'était pas pour ça qu'on les a mis ici mais nag loolu mooy difficulté jafe bi am hmm. ci démocratie du révolution ñoom dañuy jàpp li ñu def ni révolution la du révolution okay. démocratie dong la c'est-à-dire y a une alternative léegi pour indi coppite yooyu du nekk lu yomb donc mais nañu def l'effort effort bu ndaw pour que ñu sentir ne am na soppite ci lu ñu yoree état. lu ñu yore alal réew mi loolu il faut que ñu gis ko. mais pour le moment gisuñu ko. imaam tam gisagul changement. mais euh, Danfara li mu wax noonu dama ci dolli rek ni waaw fu mu nekk nii mën nañu wax ni y un changement je je dirais moi du point de vue de la démocratie électorale. Mm-hmm. ok ça ne règle pas tout le problème de la démocratie en tant que telle. parce que élection benn benn pilier la. ci biir démocratie. mën nga def élection ba pare dictateur ñëw. Mhm. def lu ko neex Hitler Hitler a été élu démocratiquement. Mhm. Mhm. et cetera donc après mu confisqué yëpp def lu ko neex donc il faut faire attention surtout que quand des gens viennent au pouvoir et que xamatuñ fu ñu jëm même s'ils sont venus démocratiquement après s'ils ont peur. Ah. ils peuvent confisquer le pouvoir et réprimer donc euh, ñi tam tendance je suis inquiet parce que je me